toujours dans votre scandale du jour sur la chaîne des grands événements VIP People TV s'informer juste après suñu jógee foofu dañuy seeti ji kii nga xamante ni mooy Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké député à l'Assemblée nationale nekk foofu ca Touba lan la wax maanaam ginnaaw candidature am bi nga xamante ni moom su 5e président de la République nan lay jëflante kii di Ousmane Sonko nañ dem déglu ji Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké bu ma nekkee candidat te Ousmane Sonko nekkul candidat askan wi man la ñuy woteel. parce que li tax ñu may woteel mooy lu fi jëlee Macky Sall te man maa fi mën a jëlee Macky Sall ginnaaw Ousmane Sonko. ndax may candidat boo xam ne bu ma jëlee réew mi Ousmane sonk dana génn ci kaso bi. dana nekk premier ministre dana nekk président assemblée nationale. ta pourquoi pas mënut a nekk président de la république. mais yeng nga ne kenn si ñoom également ci parti passé bu ñu desul. man sama bop la man sama bop la wax man sama man sama bop la wax. Mhm. Ousmane Sonko sama programme bu mu yor en tant que candidat coalition nek fi askan wi 155. buma nek candidat bu Ousmane Sonko jappelé askan wi jappelé ma mhm. dina nek président dina ko génn fam nek mu nek premier ministre. Mhm. bu ndawalee six mois mu yóbbu ko mu nekk président assemblée nationale te pourquoi pas mu nekk président de la république kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo kàddu yi nga xamante ni l'honorable député Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké li mu wax nee na moom su nekkee candidat te Ousmane Sonko nekkul candidat moom mooy gagné élection yi parce que sénégalais yi moom la ñuy wotal moom déjà atte na boppam ma yaakaar ne ni que nit ku nekk danga nga war a gëm sa bopp moom mi ngi jëm ci candidature bo xamanteni mom moom gëmul parce que xamna nañ su joganteeg Ousmane Sonko Ousmane Sonko da koy gagner donc pourquoi muy dem élection présidentielle donc xamna ni sénégalais majorité yi bëgguñu ko moom moo wax parce que yaakaar naa nit ku nekk doo dem ci combat nga naan combat bi su ma ci demee kii su bëreewul man maay gagné kon donc ça veut dire que yow wóoluwoo sa bopp alors que Sénégal du fenn foowukaay mooy sëñ Abdou Bara Dolly Mbacké nee nga bés boo demee élection te Ousmane Sonko demul yow la sénégalais di votel da ngaa juum man du la votel te ci sénégalais laa bokk te sénégalais yu bëri aussi duñ la votel ñu bokk ci Bougane Gueye Dany duñ la votel ñu bokk ci Idrissa Seck la votel ñu bokk ci Anta Babacar Ngom duñ la votel ñu bokk ci Amadou Ba duñ la votel ñu bokk ci Mame Boye Diao duñ la votel kon ñoo ñëpp ay sénégalais lañu kon sëñ Abdou Bara Dolly Mbacké mënoo koo nekk président nee nga nag soo nekkee président yow di nga def Ousmane Sonko ministre wala président assemblée nationale balaa nga naan naam da fay ne yow pare naa sax doo ko am sa candidature sax du jàll Abdou Bara Dolli Mbàkke Touba nga dëkk yaa ngi assemblée nationale fii ci ndakaaru ndakaaru bii ñu nekk man maa la gën a siiw ñu bëri ci senegal xamuñu la ñu bëri ci Sénégal xamuñu la tey yaakaar naa ni Ousin Keita soo doon xëccoog moom fii tey ci senegal Ousin Keita moo lay gagné parce que Ousin Keita boo la gën a siiw Ousin Keita la nit ñi gën a xam muy ci Sénégal ak l'international kon sëñ Abdou Bara Dolli Mbàkke su dee da nga nekk ci dragué lii di clientèle politique Ousmane Sonko du ni la ñuy defee politique avec tout le respect nag que je te jox la cër bi nga xamante ni jox naa ko sa maam di Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul may taalibe murit akkan jox ko si sëñ Saaliwu Mbàkke maanaam mooy toujours li may wax moytu leen di génn li nga xamante ni seen maam da leen ko liggéeyal taaral leen ko ci àdduna amul lu leen jomba yéen ci àdduna bu leen politique jaaxal ba ngeen di dugg ci politique sañ Touba liggéeyal na leen li ngeen xamante ni ba seen i sëtaati sët ngeen koy am ngalawaay bu leen ko yàq sëñ Abdou Bara Dolli Mbàkke ab murit nga sëtu sëñ Touba Mbàkke nga sëñ Touba liggéeyal na la ci àdduna loo xamante ni bu la dara jaral nga koy yàq ngir affaire àdduna muy politique jëlal cër ak respect bi nga xamante ni sëñ Touba liggéeyal na la ko ñu jox la ko amul benn sëtu sëñ Touba boo xamante ni duggoo ci wàllu politique boo xamante ni loo gën a tuuti te joxuñu la cër ñun en tant que taalibe murid parce que ndigal la ñuy wéyee ngalawaay bu leen wàcc seen ànd ndaxte àndu jaamur bi ngeen dem fekk fa borom sëñ Abdou Bara Dolly nee yow sénégalais yow la ñu àndal sénégalais àndu ñoog yow mais tey képp kuy murid mën na ànd ak yow plus particulièrement taarixu maam di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul waaye kanta président de la république yow nekkagoo président de la république incha allah du yàlla du ma waaye amagoo sax technique pour nekk président de la république parce que benn déggoo français te fii soo nekkee président de la république tey soo demee France war fa am benn sommet looy waxee club de Paris sommet lan ngay wax tey soo demoon 78e assemblée générale des nations bi wolof la mais suñu langue tay école yi nga xam dañ koy jàng français soo demee conseil des ministres wala def discours lan nga koy defee wolof ñëpp du ñëppay wax wolof on est à l'international kon donc yow comprendre ko lan mooy état xaaraatal tuuti député moom mën nga ko nekk assemblée nationale garaawul parce que foofu mën nga fa wax wolof mën nga fa def cinéma mën nga fa def comédie mais président de la république dafa forde dafa diis sëñ Abdou Bara wala xamoo loolu

Yon di gwen yo yon ki viwa Mwen ti da